mbokku téléspectateur Ndayane Vision ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen di dalal jàmm eh, ci suñu eh, premier numéro émission bu bees bi nga xamante ne dañ ko jagleel wàllum politique ñu tuddee ko jotaayu politique tey nag ñu amee eh, mbégte. Euh, dalal euh, ki nga xamante ne moom mooy euh, honorable député Abdoulaye Ndiaye di responsable politique bu APR fii ci Grand Yoff honorable asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu dugg ci li nga xamante moom mooy ci waxtaan wi doore ko ak xew-xew politique bi ci réew mi fan yi coow li mooy li nga xamante ne moom mooy statut spécial mi ñu wax nii bëgg nañu daal ñu daal di koy def Ndakaaru su ko defee nag ki nga xamante ne moo fas yéene doon maire bu ville bu Ndakaaru dañ koy nommé par décret. loolu ndax ànd nga ci. station bi ah, di ñaan ci yàlla defal ñu émission bu mucc ayib attente téléspectateurs yi nekk ay attentes yoo xam ne yuy atteindre la. Et par rapport maintenant à votre question maanaam ndax man agréé naa euh, léegi désormais statut spécial Dakar te le maire soit Euh, nommé mhm. man yaakaar naa ne ñun cohérence lañuy lañu lañ ci lañ nekk lañ gëm et man mënu man nekk douzième législature acte trois fekk ma fa on s'est battu on s'est battu créé ay plage d'explication fu ne ñu dem fa pour wax vraiment importance acte trois walwar wala léegi wëlbatiku léegi ñu ne léegi dañ koy war a def par décret. Moi, je crois que je ne suis pas en phase avec nos amis du HCTT. Parce que li m'a considéré, mooy euh, euh, dispositif bi nekk dispositif bu baax la euh, commission politique bi nekk dialogue national ñu ngi liggéey ba li nga xam ne ay doléances ay doléances la woon euh, ak yu ñu exprimé woon au niveau de la classe politique et même au-delà jël nañ ko en compte mooy le suffrage bi nga xam ne suffrage indirect la woon pour du maire ñoom ñëpp convenir nañ à que qu'il soit mu nekk un direct ki nekk tête de majoritaire su gagné il devient d'office maire alors mënuñ def jéego yu mel noonu wëlbatu ko ñu ne dañuy def benn kii pour nomination donc je crois que acteurs politiques yi nga xam yëpp euh, vraiment jàmm rek a leen fi euh, moo leen tax a jóg et également Euh, développement réew moo leen tax a jóg je crois que du ñu nekk en phase ak HCCT. mais aussi am nañu jàpp ne même su fekkente ne euh, proposition bi euh, ci HCCT la jógee mais am na ñu jàpp ne que aussi xëy na ballon de sonde la rek bi nga xamante ne le président Macky Sall moo sant lu pour ñu def ko xool un peu ndaxam am am na ñu ci am déet. mais non xam nga Sénégal lool moom mënul ñàkk ci politique c'est-à-dire nit tey boo àndoon ak sa doom ak sa soxna sax di dem. nga leen kii sama soxna sama doom la ñu ne est-ce que wóor Sénégal il est comme ça je crois que su nekkoon ballon de sonde la je crois que institution bu mel ni HCCT du ko porter et soo gisee ñuy wax yépp ce sont des gens qui ne sont pas directement de notre parti peut-être ils sont de la mouvance présidentielle mais li wóor te wóor ba ne bu nekkoon président la am na yeneen canaux yu mu ko mun utiliser par aha euh, leneen li tamit mooy euh, dialogue euh, national bi ñu ngi ci ba léegi mais fan yi tamit waxaat nañ ne amaat na tamit Euh, beneen euh, blocage euh, mi ci am li ko waral nag mooy Karim ak ñi nga xamante ni moom mooy Khalifa Ababacar Sall ndax ñi nga xamante ni ñoo fare ci opposition bi ñoom dañoo bëgg ñu daal di amnistie ñaari politiciens yooyu ñu indi débat bi ci dialogue bi mais ñu fare ci majorité bi dafa mel ni ñoom bëgguñ ci ànd nee nañu jamono ji loolu mooy jafe-jafe bi ban jàngat ngay def tamit ci loolu. waaw xam nga jeu politique la jeu politique je crois que son charme. muy conviction yi ñi di demee il y a une majorité il une opposition il une expression euh, de besoin am na ñoo xam ne joxe nañ ay ay position mais terewul je crois que dañu war a renforcer joxe ak def exposer des motifs je crois il y a un travail daal je crois qui doit se faire après ñoom ils vont entrer en en comment dire en contact créer des plages pour renforcer ko discuter ci et maintenant euh, léegi attendons de voir maintenant ce qui va advenir mais li mun a jàpp ba jàpp rek loolu dafay wane ne réew mi réew mi bu ñu fàttee suñu bopp rek on peut arriver quand même à des consensus. Mmh. est-ce jàpp nga ni tamit euh, question boobu ñu posé ci dialogue bi est-ce que foofu moo nekkoon place am. waaw parce que parce que en fait euh, le dialogue politique la su nga ñëw ci représenté c'est tous les partis du Sénégal. Mmh. et la société civile également elle est là-bas je crois que un cadre ce cadre là amul beneen cadre bu ko gën a approprié que bu duy boobu d' plus que aussi ci contexte bi ñu nekk mooy contexte du dialogue national si les gens pensent que maintenant question lépp loo xam dafay lié à la stabilité politique lépp li nga xam ne affaire dafay lié par rapport aux préoccupations des uns et des autres suñ ko jëlee teg ko ci kaw table je crois que loolu c'est pour quand même renforcer euh, dafa renforcer ces règles là yi tax ñu jox ne ñun nous sommes une démocratie majeure te également daf ñuy permettre également que yenn yi duñ ci dellu seet yi parce que lu mbooloo wax ba tënk ko rek je crois que président li mu wax dafa leer lu ngeen d'accord ba mu am un consensus rek man j'ai pas de souci mmh. donc maintenant la balle dans le camp des des des participants à la commission euh, politique. d' accord euh, leneen tamit mooy euh, rapport cour des comptes. ñu gis ni ñetti rapport ñoom la ñu génnandoo daal di ko jox le président de la république ñu nemmeeku ci lu bëri mu daal di jur coow ndax ñu ngi wax ni am na ci lu bëri li nga xamante ne nemmeeku nañu ci ko ci doxalin ci wàllum jubadi ci ñi nga xamante ne ñoom la ñu dënk ci réew mi d' abord rapport yooyu noonu bi nga déggee coow li ban jàngat nga ciy def. maanaam dama ci ànd ak lucidité. Euh, parce que en vérité Cour des comptes ñoom loi moo leen may ñuy saytu euh, euh, maanaam lépp loo xam ne suñu institution yi dañ koy doxe suñu service sa dépendre ci état central dañ ko dañ ko de de comment dirais-je dañ koy dañ leen koy confier <coughs> alors bu agent Cour des comptes yi ñëwee seet si la wax ak yow y a plusieurs possibilité ñu la ay dañu am ay canaux yu bari bii mun nañ la jox ay recommandation les recommandations yi kat yaakaar nañ ni lii la yii bu nekkee dafa ay njumte dañ lay demander dañuy demander à ce nga fay ko bii bu waree dem devant une juridiction pour ñu àtte la ñu saisir état loolu def koy def alors réew mi nag euh, dafa am lu fi nekk Sénégal te je crois que il faudrait que ñëpp toog nangu ko te ñu xoolaat lañ koy doxalee c'est que tey rapport bu génn rek presse bi jël na rek ku nekk na nga xalaate ngay titre ku nekk na nga xalaate nga koy interpréter politiciens yi muy ñun au niveau de la mouvance présidentielle ñu dugg ci opposition bi dugg ci société civile bi dugg ci ku nekk yaa ngi xool angle d'attaque bi yaa ngi xool ni la arrangé ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay analyser noonu alors en vérité am na ñoo xam ne sax xëy na euh, dellu siwaatuñu sax pour joxe ay ay ay ay éclairage par rapport ak li leen di tuumal je crois mais parce que éclairage yooyu aussi dañ ko war a dañ ko war a jël en compte parce que gis nga fi ay ay gars yoo xam ne wax nañu leen ñoom ñu dem rectifier expliquer mais finalement mu am ay consensus am na ñoo xam ne jox leen ay recommandation recommandation yi ku nekkoon sax moo leen di accompagner ci loolu am na ñoo xam ne dégg naa ñu ngi fay mais ñi nga xam ne nag dañu def ay garawaal yi ñooñu moom def naa dañuy recommander à ce que ñooñu ñu yóbbu ci juridiction. ah justement foofu la problème bi nekk ndax euh, ñenn ci askan wi ñoom dañoo jàpp ne euh, xëj na euh, kumba am ndey ak kumba amut ndey am na ci mbir mi ndax bu fekkente ne jël nañu def benn xaw a comparaison bu ndaw rek par rapport ak Khalifa Sall mi nga xamante ne rapport moo ko épinglé woon moom dañ ko yóbbu directement ci kanamu justice ñu atte ko et pourquoi pas ñi nga xamante ne aussi même bu fekkente ne ñoo ko def mais dañ ko tuumaal pourquoi pas ñoom aussi ñu dem répondre ci kanamu justice pour jéem a seetal seen bopp. waa xam nga loolu. ñaari juridiction ñoo bokkul bi inspection générale d'État la ci biir ils ont fait des recommandations am na lu ñu gis bële OFNAC la mais nag ñoom li li li li plaignant bi dox c'est que dafa ne moom jëluñ en compte li mu leen wax xam nga OFNAC yoon may na ko mu ñëw seet si la def rapport dem jëbal ko justice sans autant mu dem jox ko directement président. ko yoon may na ko mais li ñu war a mën a jàpp rek c'est que sénégalais boo mun a doon bu ñu la joxee gestion deniers publics rek jàppal ne réew xaalis boobu moo ma ko réew mi moo ko moom donc da ko war a liggéey da nga ko war a euh, yore anam yi sell yoo xam ne demee même bu la ci tudd dañu xam ne lii ay erreur la yoo xam ne ay erreur de gestion yi la xam ne amul doomu aadama bu munul dal mais pour le cas ki ngay wax je crois que comme mbir mi léegi dem na justice moom il osé parce que loola aussi c'est important et je crois que c'est une première porte plainte ñi ko ñi ko euh, sosal léegi nag comme yëf dafa war a dem justice dem na justice les nañ bàyyi léegi maintenant la justice dañuy andi ay <laughs> dañuy defar ay éclairage nga xam ne dañu war a mun a permettre ñun bu baax ku nekk defal sa bopp ta problème d' accord euh, mais euh, président aussi euh, wax na ni dinañ ci taxawal benn commission pour def benn suivi par rapport ak lii di rapport cour des comptes yi est ce que commission bi jar na ko parce que par rapport ak lépp li nga xamante ni mu ngi fii te ñu jàpp ni xëy na ñoom war nañ ci mën a dugg pour leeral mbir yi. xam nga bi président waxee loolu. Mhm. man su ne comprenais pas mais dama déglu fan yi benn kilifa bu yore benn direction bu importante mu ne moom liñ ko jox. njàngam loola jàng mais léegi bu yemoon rek ci benn anam mais léegi bu ñu la joxee léegi nga nekk léegi ordinateur de crédit te moom jàng ko kooku dañ ko war a accompagner. du léegi parce dañ ko war a accompagner tey mu ngi mel ni mu ni ma la ko mën a misaale tey rek ñu jël un enseignant wala un un médecin confié ko par exemple voilà un médecin qui est médecin chef. Mhm. ñu xëy ne la ci le directeur de l'hôpital xam nga direction hôpital bi yow gestion nga yore waaw bu nekkee ne amoo amoo ay compétences en matière de gestion dafay poser problème il faut ñu accompagner la xëy na foofu nag bi ma déggee loolu laa doog a comprendre pourquoi le président disait que war nañ mun a mettre en place benn commission parce que commission boobu war na mun a xëy na ni ñuy organiser woo ba nga xam ne ñi ñuy am problème yooyu ñu seet nan la leen di former ba nga xam ne léegi képp koo xam ne léegi yoreti nga ay ay ay maanaam euh, ay finance nga ko war a gérer les publiques nga am ay jumtukaay yoo xam ne euh, yow dina la mun a permettre nga nga defe ko à bon escient. Mhm. actualité bi tamit fu mu toll nii mbirum coronavirus la di euh, jàngoro jooju nga xamante ne mu ngi fale ci euh, Chine ci dëkk bu ñuy wax euh, Wuhan fukk ak ñett ci doomu Sénégal ñoom ñoo fa nekk di ay étudiants ñu jisoon ni que ñoom dañoo bëggoon pour ñibbi fa siwaat ci réew mi le président Macky Sall waxoon nii réew mi matale wut ay moyens logistiques wala sax yenn moyens yi nga xamante ne war na mën a tax ba ñu dellu siwaat yooyu les étudiants fii ci réew mi mbir mi indi coow lu communication boobu moo baaxul wala. xam nga Sénégal coow moo ñu coow coow dañ ko bëgg coow dañu bëgg coow moi je crois que président xam nga dañu nekk ci réew moo xam ne également dafa am ñu ñu yare euh, président ni mu waxee am na ñoo xam ne danañ la ne mu waxee dëgg la li wax dëgg la mais mënoon na ko waxee neneen am ñoom dañ la neneen maanaam mu ne ah, Eh, réew mi de li xew fële day ñun suñu ay doom ne fa nañu ñu ngi xool nag seet suñu kemtalaay kattan nu ñuy def bi am ay possibilité pour andi leen dina leen andi bu nekkee ne nag amuñ aussi de encadrement bi ci war dinañ ko dem a def xam nga loolu boo ko waxee aussi noonu euh, les gens dinañ mën a gën a comprendre mais moom dafa sous l'angle technique la waxee sous l'angle technique la waxee parce que xam nga tey. Euh, euh, euh, ñooñu suñ treize compatriotes yooyu ils ne sont Sénégal ils sont dans un pays qui a souveraineté ñoom nag yàlla def fa ñu nekk dafa zone à risque la alors donc loolu ñoom bu ñu fa jëlee jëlee ay nit dafay laaj tout un dispositif sécuritaire un dispositif sanitaire même est-ce que di nga mun a am vol direct te ci biir vol boobu il faut nga am sax li ñuy wax li ñu wax avion médicalisé yu mel noonu nag aussi boo ko bëggoon ut tey ci réew ci àdduna bi il faut du temps te gis nga sax arrêt finalement de paraître que les autorités chinoises on décrété que foofu kenn du fa jógeeti pour dem feneen donc je crois que maintenant le débat doit être clos cest à que ñun aussi suñu problème c'est que c'est que souvent suñu communication moo ñuy gaañ waaw parce que toujours bi président xeloo rek gars yi mënoon nañ créer benn benn auprès d'une chaîne de télé expliquer Sénégalais concrètement def une très bonne lecture de ce que le président voulait dire bu waxee na peut-être ñi wax nii yëpp duñ ko wax parce que Sénégal dafa am ñoo xam ne ñu ngi xaar nit wax dara rek ñu seet benn kii bu ndaw rek pour mun ko exploiter nag def ko un débat boo xam ne pratiquement euh, ci ci ci comment dirais-je pendant une semaine pendant deux semaines dañ ci ko nekk di di ci wax rek quoi donc moi je crois Euh, encore peut-être ci euh, terme yi mu utilisé ci wolof bi ak yooyu waroon na waxee neneen mais effect mais au plan technique vraiment sénégalais dañu war a am euh, dañ ko war dañu war a agréé li mu wax parce que c'est ça la vérité. ñu gis ni tamit leneen li nga xamante ne xëy na war nañ ci mën a wax mooy réew mi fu mu toll nii Sénégal yu bëri ñu ngi jooytu di wax naan daanaka métti na ndax wàllum économie bi. Euh, am na fi nga xamante nañ ne son contraire euh, sëñ Fall marché ñan ñoo fay jaay. xanaa commerçant yi ak ñoo yokk. c'est ça le problème yow nangu nga ne yow su tabaski di yokk su tabaski bi di jege si yow nangu nga ne sénégalais yi jaay. lu ñu doon jaay benn ñett lañ ñetti lañ koy jaay wala ñeent su magal Touba jotee transport boo doon fay mille cinq cent cinq mille ngay fay gàmmu noonu donc su nekkee ne loolu dafa am ñun suñu biir ñun Sénégalais yi dañuy xoolante suñu suñu bopp. la deuxième chose réew moo dem actuellement dans le monde y a des problèmes énormes yu fa nekk y a des problèmes énormes yu fa nekk mais euh, euh, dafa am ñoo xam ne également. lay lay jóge seen dëkk dañ koy utiliser moom la ñu ci lekk par exemple tey xam nga tey boo demoon Côte d'Ivoire tey Côte boo leen boo tegee tey saaku ceeb teg aceke aceke bi bu na jeex bañ àndiwaat te saaku ceeb bi du yàgg ci milieu bi mais sénégalais bi tey boo ko àndi woon laax yi caxaan tegal ko fii wala mbaxal mu ne la yëfi baadoole yi mooy lan wala laax te loolu lañ moom te sunu maam yi loolu lañ doon def suñu papa yi loolu lañ doon def moo tax y avait moins de maladie et la vie quand même lu mu métti métti euh, conjoncture bi les gens arrivaient cent s'en sortir donc je crois que euh, yokk bi nañu seet parce que yow tey tomat mun nga ko defar ba pare ba mu ba mu ñor nga ñëw mun na la dikkee dama joxe exemple ah, parce que nuyu nu ma ko bu mais par exemple cent francs nga ñëw fii ñu xëy benn jour ñu ne def nañ ko trois cent cinquante sans raison san raison xoolal ci ci mbé ceeb bi ceeb bi ñuy béyee Sénégal tey euh, kër yi bëri bëgguñ ko te moo gën a baax ceeb bi ñuy lekk ci kër yi donc il faut une révolution des mentalités ñun li ñun ñoo sonal suñu bopp. ñetteel bi également sénégalais rek ngay gis booy fayeeku cent mille francs bugg a dundee borom trois kii fayeeku trois mille francs di ko fay di ko dundee. alors que tey boo demoon tey ci réew ñag yi ki am cent franc cent franc la am moom lay dundee ki am deux cent moom lay dundee ki am trois cent moom lay dundee moo tax ñoom yenn problème amuñ ko bien vrai que ni mu méttee la mettee foofu en France mais les Sénégalais qui sont en France les Sénégalais qui sont aux États-Unis qui sont en Italie ñoo la gën a xam ne foofu dafa métti mais pourquoi ñoom ñu wax bu ñu wax waxee ñu ne non non Sénégal dafa métti Sénégal di ko gën a métti ñun la xoolal location yi le gouvernement wàññi fi woon location ña ñoo ko yokkaat du borom kër yee ko yokkaat da nga xool léegi une chambre qui te fait 3 mètres sur 3 wala 3 mètres sur 2,50 ah ñu la koy loué 40 000 francs mais loolu boo ko tegee kii liggéey mais kooku sonal nga ko. mais voilà tout un ensemble de problème yoo xam ne ñun sénégalais yi ñoo war a toog xoolaat concrètement ñu baalante ak ñu toog xoolaat ne kat ni ñuy defee nii baaxul ñu entre sénégalais war nañ war nañ mën a yërëmante entre sénégalais war nañ mun a jàppalante. mais léegi cette ces valeurs la de respect ces valeur de solidarité yooyu yëpp ñu ngi tendre à disparaître. Euh, on va aller au-delà de de de xëy na li nga expliqué léegi mooy euh, d'abord ci yokkuteg xëy na peut-être njëgu courant gi euh, mais tamit ñu gis ni que ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci gaz bi di waa Unagaz ñoom aussi ñu ngi menacé ni xëy na boo moytulee gaz dina manqué fii la ci fan ndax nag gouvernement bi moo leen yore li bor bi nga xamante ne fayagu leen boo xoolee aussi syndicalistes yi wala sax ci côté éducation bi tàng na ñoom aussi ñu ngi ci ay grève yu dul jeex loolu yëpp cim réew boo demee ba gis situation yooyu. xam mais la majeure partie des syndicats ñu ci bëri ils sont des hommes politiques. kon mbir bi dafa euh, daal expliqué. mbiri gaz bi. dégg naa fan yi ñu ne le gouvernement dekke na dekke na des milliards pour quand même jox ko euh, hydrocarbures li liggéey ci hydrocarbures yi c' est déjà quelque chose de bien parce que xam nga ce que les aussi ne comprennent c' est vrai que des booy kaas da nga koy da koy da koy adapté par rapport ak la situation budgétaire du Sénégal xam nga boo xoolee octobre ba décembre ci lañ doon liggéey sur l' euh, ci lañ doon examiner le budget national boo paree février yow ngay positionné budget yi. waaw léegi yow bu nekkee ne yow mois de novembre les gens sont en pleine en pleine session budgétaire yow nga ne il faut ñu répondre rek tout de suite problème te li lay li régler sa problème moom la ñuy waxtaanee actuellement nii mais instant boobu les gens ne peuvent rien faire par contre nag bu ñu demee ba positionné fekk am na ci yoo xam yaa ngi ko doon kaas ñu waxoon la waa dinañ ko def dañ koy intégrer ci budget bi. naturellement de manière progressive affaire bi day xel di jël di leen boo jëlee le le cas des syndicats d'enseignants euh, boo seetlee les nombre de points yi ñoon wax ñoom da ngay ne rek il faut respecter les accords xam nga loolu lañ lay wax mais ce qu'ils ne disent pas duñ la ne y a quelque chose qui a été fait combien d'enseignants n'ont pas été reclassés qui sont reclassés combien d'enseignants qui n'ont jamais reçu de rappel qui ont reçu des rappels boo jëlee les maîtres contractuels combien d' enseignants lañ lañu lañu la ñu dugal fonction publique régulariser seen situation mais loolu mais foofu aussi man su ma amee lu may wax mais état bi laay la la la laay wax parce que lu mel ni ministère de l' éducation nationale lu mel ni ministère de la fonction publique ministère des finances mais boo tollee liggéey liggéey parce que liggéey bu toll noonu mais war nga convier presse bi nga ne tey tey par exemple dans le réseau national synchronisé toutes les radios toutes les chaînes publiques tey pendant trois heures de temps on va parler des questions syndicales fii lañ bi ñu ñëwee fii lañ fekk affaire bi voilà ce que nous avons fait point par point mais bu leeree ci bopp sénégalais les gens euh, dinañ comprendre boo jëlee le système de rémunération xam nga système de rémunération état bi moo demandé pour ñu def ko. ñu def ko pare ñu taxaw mais l' état s' est compte que mais pour ñu exécuter présentement nii dafay jafeñ xam nga système de rémunération mooy lan da ngay dugg bac plus def deux ans dem jàngale ji moyen général nga dem continuer sa étude université am sa licence am sa master dem def sa DEA am ko dem sax doctorat def ko léegi ñu ne la léegi ñoom ñu ne léegi. le magistrat qui a parcours boobu yëpp nombre d'années yi la muy am ñoom dañ leen war a yemale ak ñooñu xamala la mais loolu quand les enseignants agissent comme ça les travers de la santé agir comme noonu le personne administratif de la fonction publique agiré noonu Sénégal fu mu jël xaalis bu mu régler problème boobu yëpp mais aussi ñoom euh, accord la ñu wax. waaw mais xam nga accord non xam nga accord boo ne dañu war def système de rémunération. mais boo defee calculer. mais toogal ak ñoom ak ñoom nga leen lii on peut pas le en une année ni en deux ans parce que tey lan moo tax yow ñu la la wax ne pour nga dem ENA il faut tel diplôme. mais est-ce que gouvernement bi mu mënoon signer accord yooyu. non fekkee membre ñuy waxtaan ci accords yi mais ñoom am nay temps jàppoon nañ ci vingt deux points dix huit ils étaient woon nañ ko mais dafa am ay xam nga ñoom lu ñuy wax yii xaay bi la ñuy wax entre yii xaay ak non exécution yaa yaa un mais parce que ñun bi en 2012 bi président di ji réew mi ñëpp d'accord nañ ne le système euh, de la fonction publique était déséquilibré gars yi nu leen neex lañ doon dugalee euh, nit ñi fonction publique boo am na benn histoire bu may faral di wax tout le temps bi Choucair une dame qui a été promise infirmière d'état mu dem fekk gars yi def réunion ñu affecté ko jox ko benn corps mu góon wax médecin bi ne ko man li ñuy wax yi ngeen wax ni yëpp xaw ma ci dara ndeke laa daam mosul jàng médecine loolu am na ci ancien régime bi alors yooyu nag foofu lay waxee quoi Mais le gouvernement a l'obligation de communiquer. e le gouvernement doit communiquer. loolu loolu laa wax parce que bu aussi enseignants yi aussi quelque part ils ont raison parce que boo jëlee dara waxoo ko ñoom waxoo lu leer tegoo ci ñoom aussi seen kanam loo xam ne mun nañ ci wax mais naturellement dañuy gën wax mais aussi à leur intention aiguë dama bëggoon aussi ñu comprendre que y a une typologie de de de la grève mais xam nga nga vaquer cours yi dem toog sa kër xale bi toog këram ngeen dem ba mois de mai ngeen juboo mu des deux mois pour xale yi euh, def examen nga bugg a def mel ne ay cours de renforcement def leneen def leneen mais qu'est-ce que les gens pensent après avoir par investi les médias def un plan non média lan moo leen tere ñu def brassard rouge dugg seen classe di jàngale loolu def naa bu ñu ko defoon donc je crois que xëy na dina dina tiit bu boobaa les sénégalais seront beaucoup plus regardants par rapport à ce que ces gens mais fi mu nekk nii sa réew mi lu jóg rek ju ne nañ dem ci média yi nañ dem ci média yi. Euh, xam euh, ni tamit euh, soxal na réew mi soxal xale yi soxal borom njaboot yi mooy insécurité bi wala sax ay xale yi nga xamante ne ñu ngi leen di sakku di leen di faat ñu jàpp ni insécurité mu am ci réew mi ñu jisoon ci fan yi nga defoon ci benn contribution bu am solo ci réseaux sociaux yi lan moo ci sa xalaat. waaw xam nga eh, ñun li ñu moom xamoon ko dañ ko bàyyi yoon bi ñu nañ ko bàyyi parce que bu njëkk dañ doon yar xale yi léegi yar amatul léegi cellule familiale yaru amatu fa kenn yaratul la rue bi nekkoon situation éducative nga xam ne danga fa doon defaroo léegi li muy yàq bu ëpp li muy defar école bi nekkatul cadre d'éducation instruction la nekk enseignant bi dañ ko dañ ko dañ ko mel ni dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko teg ci benn carcan ne ko amatoo droit def lii amatoo droit def lii moom aussi nekkatul un père devant ses élèves qu'est-ce qu'il fait lay defee rek qui comprend qui ne comprend pas c'est le cadet des soucis à la fin du mois il prend son salaire réew bu demee ba tollu foofu naturellement buñ amee yi agression yu métti yooyu bu ñu jaaxal ñi agressé suñu ay doom lañ suñu ay rak lañ suñu ay jarbaat lañ suñu kër lañ jógee on les identifie koñ boo dem fii xam nga ka fay jaay yàmba xam nga ka fay ka naan sàngara xam nga kay sàcc xam nga kii agressé mais on les dénonce pas de peur demain peut-être peut peut-être nekk laa disait des gens. xëy na yàmba bi sax doon problème ndax am na xëy na kenn ki nga. aussi gis nga gis nga yii parti politique yi. presse bi certaines ONG actuellement ni ñoo yàq réew mi te il faudrait que maintenant ñu ñëpp ku ci nekk ñu dellusiwaat à l'orthodoxie kër yi gis nga boo dégloo Afrique ñu wax ay Rwanda et tout ça foofu c'est une dictature positive ah. yi ngay ñun li ñuy wax fii ci rajo yi boo ko waxee foofu yaa ngi ca kaso ba am na yu bëri yoo xam ne donc il faut que ñu accepter daanoo nos maisons ñu reprendre temps passé maa ngi ko doon wax mais pourquoi pas organiser les états généraux de la cellule familiale dinañu permettre ñu toog une journée ku ne toog sa kër ak sa njaboot nga analyser la situation seet pourquoi am na dix ans ci gannaaw lii boo gisoon deret bu tuur nga daw léegi da ngay taxaw yore sa euh, sa sa comment dirais-je sa portable ngay filmer y a problème donc te nasaraan yi li ñuy andi chaque jour li gën a bon ci ñoom la ñuy woon ñun ñu yaakaar ne loolu moo nekk en vogue en vogue alors que ñun ñuy gën a détruire donc léegi le le moment est venu que ñu ñëw toog waxtaan a ak xele yi la question des droits de des droits de l'enfant bu ñu recopier ko def copier coller l'enfant tubaab contexte ba mu nekk réalité socioculturelle mu am bokk la ñun ay bos fii am na loo xam ne ñemoo ko fi def nañu jël droit de l'homme yi droit de de l'enfant yi adapté ko à nos réalités socioculturelles et maintenant chacun a sa part de responsabilité dans cette situation. lu ñu euh, cërloon ci waxtu ci euh, seen émission jotaayu politique euh, jeex na dañ lay bàyyi rek nga daal di tàggatoo waale benn yoon. mais encore une fois de plus c'est toujours avec un plaisir pour di waxtaan rek parce que yow yow li soxal askan bi ngay wax pour permettre à nous autres de s'exprimer de donner des points de vue je crois que seen organisation bi seen seen télé bi ñu ngi leen di ñaanal yàlla defal leen ci tawféex bu def leen yokkute ngeen mu yokku lool et vraiment vous avez de très bonnes disposition di ñaanal également seen téléspectateurs yi guddi jàmm ah yàlla def jàmm ci réew mi defal ñu ko ñun ñëpp faj xaajo yi sutura bi yokku réew mi jëm kanam jërë ngeen honorable député Abdoulaye Ndiaye ñu koy jaajëfal bu baax a baax responsable politique la également euh, fii ci Grand Yoff bokk ci parti wu APR mu nekkoon kon seen numéro bu njëkk émission politique bu ñuy wax euh, jotaayu euh, politique kon mbokk yi cant ak ngërëm ñeel na leen yéen téléspectateur u Ndayane Vision di gërëm ñi nga xamante ne aussi ñoom ñooy équipe technique bi dig daje incha allah ci di kon semaine bu ñu dégg ma lay doon ci seen beneen numéro émission jotaay politique mbokk yi jàmm ak jàmm